jërëjëf mbokk mi ala kulli xaalin day ñu fas yéene ñëw ci géntu bakkan ndax loo gis rek amul hasard kon ceer yëpp doomi aadama yi bu ci nekk boo ko génte am na lu muy tegtale ki nga xam nag daa gént mel ni ko amul bakkan wala mu gént ñu dagg bakkanam loolu it mën nay tegtal ak wàññi ko ko jege koo xam ni mbokkam la wala koo xam ne xaritam la bu ko jege wala doomam ba tey ki nga xam ne daa génn di génn ay baqatu ci bakkanam yi loolu mën nay tegtale ëmb bu yees mën nay tegtale ak am doom alaa kulli xaalin ba tey ki nga xam ne daa gént bakkan bi di bori di génne deret alaa kulli xaalin loolu mën nay tegtale wërsëgu yaatu mën nay nekk alal ju muy yaakaar di ko jot euh, ba tey it mi nga xam ne daa gént ñu dagg bakkanam loolu it mën nañ nekk ay jafe-jafe ci ñenn ñi wala mu nekk ay xat-xat ala kulli xaalin mën ngeen a jël numéro yi incha allah rabbi eh, koo xam ne dafa am gént na envoyé vocal directement wax géntam ci numéro bi waxtu wuñ ko déggee nañ ko tontu kon numéro yi mooy 78 443 vingt 27 nga xam ne day bëgg ku ko seetal wala li si xaaral wala mu am jafe ci wàllum tawat moo xam li si wa ilaa mu am jafe-jafe bëgg ko seetal wala ilaa mu bëgg xam saraxam wa ilaa muy dugg ci mbir moo xam ne bëgg naa xam ba xam gën na ci moom yëpp incha allah ku ci aajowoo mën naa woote wa ñi nga xam nag dañu am jafe-jafe ci wàllum tawat moo xam émir wala ndoxasiti wala ñi nga xam dañuy bëgg jëm ci wàllum bayre wala kaaraange incha allah ñooñ bu leen neexee mën nañu woote kon gént bu ci nekk rek am na lu muy tegtale kon mën ngeen a jël numéro incha allah 78 443 75 27 wa ila ngeen dugg ci biir page bi rek su ngeen duggee ba ngeen bësee appel di ngeen gis numéro bi directement incha allah kon bokk mi nga xam ne daa gént tamit bakkanam rëy lool bakkan bu rëy lool nay tegtale dara ya nay tegtale yokkute nay tegtale aajo ju faju ba tey ki nga xam ne daa tawat gént bakkanam di génne deret wa ila gént ñu dagg bakkanam loolu it nay tegtale ak wàññikoom waa ilaa tawat jooju mën naa gaaw wér mën naa bañ a gaaw wér ci moom euh, ba tey mbokk mi nga xam ne daa gént bakkanam mel ni ku ñàkk bakkan ci biir gént gi mooy loolu dana tegtale ak jaaxle ci ñenn ñi ñenn ñi tamit danay tegtale jafe-jafe yu ni am ci mbir moo xam dañ ci waaj a dugg wa ilaa ñuy lijjanti benn mbir mu am ay gàllankoor ala kulli xaali nag ñu bàyyi xel bu baax a baax gént amul hasard am na ci ñoo xam ne buñ géntee seen bakkan di bori suñu xëyee muy bori am na ñoom dañ leen di wan am na ci ñoo xam nag suñ géntee seen bakkan bori mën naa bañ nekk bori waaye mën naa ne tegtal leneen lu bokk tak bori bi incha allah rabbi ndax niñ koy faral di waxee gént gu nekk rek am na lu muy tekki moo xam doomu aadama bi yëg ko wa ilaa mu ñàkk ko yëg ndax suñ borom bindut doomu aadama bi ci ak neen te lum ko def rek am na tegtal kon gént bakkan am na tegtal yu am solo tegtal yoo xam ne incha allah lu mat a